salaamaaleykum waaw ñu ngi lay ziar bu baax waa Feeling Dakar. ñu ngi leen di béggee bu baax. jaajëf Faye. waaw comme chaque année rek ah comme chaque année donc euh, chaque année rek boo ñëwee yaa ngi créer lu bees donc euh, noonu lañ koy defee bu daaw bi gis ngi ni mu meloon daaw ñu fi nekkoon. gis nga ni mu mel donc ñi fi nekkoon dañu dem bokk ñi ñëwul woon ak ñeneen ñi nga xam ni daaw amoon nañu empêchement ak ñoom ñëpp ñu boole ñëw donc euh, mooy loolu action yu bees yi album yi bees yi ak yooyu yëpp donc innovation ak beneen soxna si maa ngi jaar ak beneen genre organisation euh, xool li manqué woon daaw ñu yokkaat ren ba pare euh, ambiance bi xam nga tamit ñun tamit ñu ngi màgg yooyu yëpp def ci joué daal en tout cas ren dina gën a neex daal d'accord hmm. léegi ma demoon laaj sa participation si DTV avant lan lay indi si tout. waaw mais waaw mais comme comme comme ñu xamee Aba rek animation avant wala di ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a yéeg ñu présenté leen ñu yéeg euh, parce que nag ay surprise dina am ndax ay ndaanaan dañu jóge fu sori daal di ñëw. Euh, te comme daaw dañ ko defoon mu neex loolu ñu laajaat ko ren mu nekk anniversaire tamit Wally te xam nga ni Wally hmm, day gérer ambiance bi daal di gérer li nga xam ni mooy show beek lépp mais avant mu yéeg nag ah minute faaw ñoo ne suñu bopp xam ni ci xew mi lañ te suñu xarit moom moo xewle. d'accord donc mën nañu ne kon euh, dina jaar yoon quoi. waaw mais comme d'habitude rek comme nam daan demee rek balaa muy yéeg ñu yëngal ba mu yëngu def show def ambiance nit ñi nekk ci biir bain bi avant mu yéeg nga xam ne moom bu ñëwee rek euh, day fekk lépp ñu teg ko ci yoon day ñëw rek daal yi dóor mu daanu. ok merci waa Feeling Dakar ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax kontaan naa.